dañoo gis léegi président wootewaat beneen couvre-feu ñu ñëpp a gisandoo léegi léegi lañ gis information bi ci net bi euh, franchement man déception laa ci lii moom foge woon naa lépp ba des lii man crois même que euh, benn ballon de sonde la bu président bi sànni euh, pour xool ba xam population bi nañ ko accepté comme ça bu bëggee def forfaiture am troisième mandat wala dara mu ne waat gaa yi tëdd leen gaa yi tëddi parce que lii amul benn effet bu muy def pour lutter contre le coronavirus déjà bus yi yi bàyyi nañ ñëpp ci ciy duggandoo duñu vérifier ku takk masque dul takk masque classe yi classe bu nekk dem plus de soixante quinze élèves plus de cent élèves ñëppay toogandoo ñu ne léegi day jël privé nit ñi seen liberté de vingt une heures à six heures du matin amul benn sens amul benn impact ci ci ci feer bi pour man dañ ko def dañuy tâtonner rek. ñëpp daal ñu ngi koy naqarlu instant yi nii parce que foo génn nit ñi wax bi rek la ñuy wax quoi c'est que dafa am sax gis nga nañu fàttaliku démb quoi. gis nga temps bañ fi defee couvre feu franchement parler ñu bari si lañ jaaree dee mag ñu bari si lañ jaaree dañu faatu dëggantaan nañu wax quoi li am parce que am na ñoo xam ne seen yenn parents yi pour ñu dox nii woon sax wala ñuy génn nii sax da doon metti dañuy ànd ak ñoom daan ko daan gunge pour mu dox tuuti mais loolu yëpp amatuñ ko ñu toog ñëpp dañoo jaaree noonu dee dangay ngay toog ba si yàgg ñu ne la waa ji dem na dem na te yooyu moo fi war ñun waruñu dund dund boo xam ne léegi lu neex tubaab bi la parce que fii dañ fi gisul benn feebar boo xam ne sonnal na nit ñi sonnal nit ñi ba nga xam ne nit ñi dañ ciy gis seen bopp bu dee tubaab bi la sax waaw mais fii doo fi gis benn feebar bu xaw a sonnal sonnal gars yi ba ñu naan dañuy def ay couvre-feu nit ñi waxuma la sax julli bu normal sax dootoo ko mënati quoi. léegi affaire bi c'est trop léegi ñun bien que dañ doon wax feebar bi am na amul am na amul mais nit ñun sénégalais en tant que ñun africain yi nii ñun mën nañ ko dund di ci vivre normal mais nii bu ko defee te nañ xool population Sénégal majeure partie bi tuuti ñoo ci nekk ay fonctionnaires ñi si des ñëpp ay ouvrier lañ. te gars yi yëpp dañuy fartaatu di ut lu ñu yóbbu seen kër ñi fonctionnaire yi rek ñoo ciy toog seen kër après ñu leen di fay normal mais majeure partie bi ñu desaat ñëpp ay ouvrier lañ ko ci demul uti doo am loo yore sa kër. ñun moom président bi wax fa dëgg ne yàlla ñun dañoo bëgg a laajte couvre feu vingt et ba six heures du matin ba six heures du matin la mën a def ci corona bi. ñun loolu moom bëgg nañ mu leeral lañ ñu ko loolu lan la mën a wàññee corona bi vu que nit ñi 6 heures du la ñuy xëy def seeni activité ba vingt heures actuellement seddaay lañ ne ñun actuellement sànq dañoo génnoon dem di ay kii mais fu ñu dem ñu ne ñu tëdd nit ñi tëdd nañ dèjà bu dul couvre fa sax nit ñi 21 ñu dem tëdd te corona bi boobu mi ngi ñëw kon dañ ko bëgg a laaj ñun diggante vingt heures ba 6 heures du matin ban ban kii lay def ci effet effet lay def quoi pour corona bi wàññeeku. ah état état dafa war a xam ne ñun li ñuy dund état ñu ko ñun li ñuy lekk ñoo ko yër suñu bopp da ngay jógee Dakar 20 heures balaa nga agsi Pikine 22 heures 23 heures circulation dafa bari ci yoon bi état avant muy jël benn matukaay dafa war na sóoraale loolu bu dee 23 heures sax baax na 21 dafa teel trop sax dafa teel gis Sénégal fii li ñun li ñuy am li ñuy li ñuy am li ñuy liggéey ñoo koy jox ñoo koy jox suñu bopp état joxuñu dara yaa ngi dégg ci lépp nag amul état lu ñuy defal dafa ñu bara ñu yorente suñu bopp lu liggéey suñu bopp comprendre nga am na ñoo xam liggéey gudd la ñu yor yaa ngi dégg état dafa war a jàppale doomu aadama yi balaa moo jël benn décision mu ñoom seen affaire baax na pare balaa ñu jël benn décision ñu war xalaat doomu aadama yi xalaat nit ñi xalaat banlieue bi ñu dëkk ci banlieue bi am na ñoo xam Pikine la ñuy jógee dem di liggéey Dakar dafa métti ci ñoom am ñoo xam ñu ngi Kër Massar liggéey Dakar dafa métti ci ñoom dafa dañoo jóge yëmbal ñi Malika fu ne la waa di jógee bu ñu xool ñu ne ville rek dafa métti ci doomu aadama yi dimbali nit ñi xool nit ñi fi ñu nekk ni dafa métti non man loolu laa xamul fan la ko teg Macky Sall laa xamul fan la teg loolu fan la teg couvre fa fii ndaw yee ngi nii liggéeyuñu gisuñu dara loo xamante ne tey dafa fees suñu bët nga xëy xëy rek ne da ngay def couvre-feu loolu pour lan la naan vingt et une heures six heures du matin mais léegi ak dëkk bu metti bii ñun fan lañ jëm ñun. waaw président moom ba defee couvre-feu xamal ne loo xamante ne nii moom yoon la parce que réew mi moom lañ ko teg si loxom lu muy daj ci suuf ñun xamuñu ko léegi nag dañuy xaar rek ba xam dina génne résultat wala mais su demee noo xamante ne nii kenn gisu si dara dañuy sonal rek parce que nit ñi dañoo war a dund am na ñuy dund ñoo xamante ni basé si président bi nañ leen xalaat waaw parce que ñi basé président bëriwul de instant bii nii lu ma la mën a wax. parce que nit ñi lu ñuy xalaat mooy ëllëg lu ñu yóbbu seen borom loolu la ñuy xalaat instant bii nii nit ñi nag moo tax seen soxla yi ku leen ko arrêté loo rek war nga ma lu am njëriñ moo war a tax arrêté loo leen ko. baax na si ñu xam nii mën leen teel a wàcc mais baaxuñu si ñi nga xam ne dañuy guddee wàcc te couvre-feu maanaam am na yenn jotaay yoo xam ne yu bari da koy da koy da koy effacé suñu sañoon mu ba mu bàyyi def état état comme ni doon defee masque yi loolu moo ñu daal bu fekkee ne loolu lu xam ne lu am la métti na wax dëgg yàlla man mii taxaw di silmaxa di arrangé wu ma ndax man silmaxa laa te mag la waaw ah, ba ma xam ne ba tey ma daal rek moo doon sama métier aw ma leneen lu may def yàlla war naa ba magal magal naa fi ne ay feebar yu ndaw yoo xam ne fi mu toll nii. su ma yelwaan ni wul am na garab yoo xam ne moom la war a génn man sama bi nga xam ne moom laa dégg ne moom ci gars yi ne wen moom la ñuy def couvre-feu bi vingt et une heures man arrangé wu ma ndax vingt et une mooy sama digg màjjal ndax man heure heure heure boobu heure boobu lay gont wu ma wax dëgg yàlla. mooy président réew président tous les Sénégalais mais couvre-feu bi man gisuma sens am gisuma njëriñam parce que tamit njëkkoon nañu ko def kaay di gën a évoluer di évoluer waaw man daal gis ma benn sens am parce que couvre-feu moom boo ko defee gaa yaa ngi rassemblé wu ba tey kenn taxul masque gaa yaa ngi a tànkaloo bii si école yeeg lépp mi ngi continuer di am waaw te couvre-feu moom gisuma njëriñ. waaw ah, ñu gisoon ne ah, ah, njëkk na def couvre ñu gis nu mu amee ñu jàpp ci dóor nit ñi yaakaar ne tey ji bu amaatee loolu dina amaat. mais ñun buñ fi nekkee pour aar ñi xam nga sénégalais ñun en tant que boo ko waxoon ne tey dama da ngeen am rendez-vous 10 heures la ñuy lañ leen war a ngeen ñëw foofu. boo xoolee ñun dañoo tàmmoon benn affaire boo xam ne dix heures et demi la ñuy ñëw mais loolu tamit danga nga koy xool ne ni ngay dundee say njaboot da xam ne nii laa doon dundee ak ñoom mais bul toog rek tey créé naa benn affaire benn dama koy appliquer ci saa si am na ñoo xam ne bu ñu yeewoo bu ñu ne six heures la ñu war a liggéey cinq heures du matin la ñu war a jug pour dem seen yoon sinon dañuy tardé ñu si bari ñoom xam na ko te boo tardé nan la ñuy mujjee mais ñu bari am na ñoo xam ne ci ci corona bi la ñu bari lañ ñàkkee seen liggéey ba tey liggéeyatuñu parce que dañoo dem wàññi ñëpp kenn dootul demati dootoo amati heure boo kii mais nañu bàyyi xel population bi quoi. jàpp nit di dóor moom war na yaakaar naa vingt et unième siècle bi nit waratul jàpp nit di dóor jàpp nit di dóor. defoon nañ ko bee paase. waaw mais ah moom presque ñun suñu homme de tenue yi ñoom tamit ñoom ñoo war a gën a comprendre population bi puisque des fois fii nekkuñu États-Unis nekkuñu France moyen de transport yi da gis koo xamante ni day xëy dem liggéey ñu ne couvre-feu diggante balaa 19 mu wàcc 19 heures balaa moo bu waree jugee Colobane waree ñëw Pikine balaa moo yegg si fii nii 22 heures jot wala 23 heures ndax tali bu xat léegi mu wàcc dox waree dem ci kër njabootam nga dajeeg moom di ko dóor ñoom policiers yi jëmu boppam ñoom war nañ comprendre nit ñi xam ni Sénégal lañ ne. waaye nit moom ki ko door ndax doomu aadama moom ki warul dóor boo dóori ba nga ko bàyyi sa kër te ko comprendre nga ko da ngay bàyyi doomu aadama yi dóor nit ñi ay ñun fii amatuñu dóor léegi ah man de ko boo dóor man ah, xaar xaaratuñu ko yàlla laay gaar non dóor yi moom xewul Sénégal moom du yoon ñu dóor kenn moom. mais sa doom sax waratoo ko dóor balaa nga kaa def dara nga koy woo yedd ko dóor dafa amatul ci àddina fii kenn waru fee dóor kenn magum jëmm nan nga koy jàppee dem ut liggéey pour dimbali ay waajuram ak ay doomam pour yóbbu këram. naajee wàcc nga jàpp ko di ko pompoloo naan da nga koy dóor tegul fenn. dem dañuy tëddi parce que tamit <clears throat> policier loolu rek la di amuñ amuñ amuñ dara lu ñuy def parce que quand la ñuy lu maam góor waxoon di lekk ceeb bi rek dañuy yàqamte instant yi nii ñamal gars yi xiir parce que defuñ dara quoi amuñ lu ñuy lu ñuy def moo tax couvre-feu ñoom bu ñu ko waxee dañ siy kontaan ndax am na lu ñu mën a def quoi mais du duñ leen xaar quoi ñu dañuy dem tëddi balaa ñëw dara lu fi amoon ci Sénégal lu ne mën naa amat ndax comme amoon na rek mën naa amat waaye ma xamal ne policiers yi seen i seen i seen i seen i jarbaat lañ fi nekkal ak seen i rak ak seen mag ak seen i seen i kon war nañoo téye ci mbir mi te xam ne xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lan ñu dawal yërmande dawal waa te dóor luwaa wax dëgg yàlla man xaw mosuma gis fenn texte fu ñu ne dóor luwaa la wax dëgg yàlla. te ñu ngi gis école yi ba léegi ñu ngi jàng biis yi foo dugg day fees dellu ñu la loolu tamit est du yoon moom it comme def na couvre-feu mu bàyyi loolu. dëgg la demal ci marché yi rek yow école yi sax nga wax demal ci marché yi demal ci gaar yi demal ci kii yi nu mu yi nit ñaa ngi dem ne dem leen te dikk bi nit ñaa ngi koy def nu mu neexee léegi ci yooyu la waroon di gën a xool mais pas ay couvre feu nii. mais ba léegi nit ndaje yee ngi am nit ñee ngi def marché ku nekk école yeeg xale yee ngi xëy di jàngeek xam nga nit ñee ngi dem marché ni ñee ngi dem fu nekk mais loolu noonu lan la ñu mën a xëyee rek ne couvre fa mais yan kaa yan cas laa xam yan kaa fii man xaw ma ko corona man man ñi xam fii rek bëri na yow ñi nga xam fii bëri na keneen ak keneen. kenn mësu fekk gis ko corona mais pour lan la loolu pour lan.